asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal bokki biti Sénégal fi masaariqi l ardi wa magaaribiha maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara maa ngi leen di ndokkeel alhamdulilahi rabbil alamin dellu si nag ak yéen ci sunu jataay bi ñu tudde min baru ramadan di jataayu labirante ak fàttilente yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf ko ne wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin del fàttile ndax fàttali day jariñ way gëm bi sallallahu alayhi wa sallam lii nii laabirante la laabirante mooy fexe ba jaam bi xam lépp lu baax te jariñu ca waaye fexe ba jaam bi xam lépp lu bon ca mucc ca rek bépp ñaawteef mu xam ko xam nañ cay mucc ca mucc ca ak laabirante ci tënk mooy anam googu mbokk yi minbaru Ramadan tey ñi ngi tànn tomb boo xam ne tomb bu am solo la ci lislaam tomb la boo xam ni mën nañu wax ni ci la lislaam taxawee tomb boobu mooy al infaaqu fi sabilillah am tomb bi mooy fadilatul infaaqu fi sabilillah te moy ngëneel yi dépassé sa alal joxe sa alal ci yoonu yàlla mbokk dépassé sa alal ci yoonu yàlla ci la lislaam sampo ci la lislaam dëhëre ngeen dégg suñu borom di wax ni radiallahu anhum wa radu anhu bari na ca ñoo xam ne julli bari mayu ko ay koor yu bari mayu leen ko waaye yàlla mayen leen alal ñu nangoo génne seen alal lang ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam lu lislaam bëgg ci côté finance kooka nekk euh, financeur ba mooy ka nga xam ne mooy joxe loolu moo waral lislaam dige pay gu màgg ci joxe sa alal ci yoonu yàlla suñu borom tabaraka wa taala misaale na financé ci yoonu yàlla mu nuroog bor bu jaam bi di leb lente ak boromam maanaam jaam bi jamono bu yëkkatee alalam joxe ko ci yoonu yàlla day mel ni dafa lebal yàlla xam ngeen ni nak sa moromum jam sax boko lebalé mu ngeejo la fay rawati na suñu borom mi nga xamni yow makoy lebal ak la ko lebal lépp ci momelam ngeen nek kon jam bu lebal yàlla yàlla amna na kartanu fay la lu gën la ko jox motax suñu borom wax ni man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa أدعافا كثيرة ku mu neex ci yéen wala kan la neex ci yéen mu lebal yàlla bor bu rafet bu ko yàllay fay da koy ful ful gu bari xam ngeen suñ boroom waxoon na ni man jaa bil xasanati fa lahu asru amsaaliha képp koo xam ni indi nga lu rafet ca yàlla dañu la koy fayale dañu la koy fayale benn bu ne fukk waaye kasiira nag mën naa ëpp fukk mën naa doon ay ay ay ay ay ay téeméer mën naa doon ay junni kon suñ borom misaal na joxe sa alal ci yoon yàlla mu mel ni jaam bi day lebal boroomam mu mel ni jaam bi day lebal boroomam waaye sart ba nag mooy xardan xasanan mooy li ngay lebal yàlla nag na doon lu baax na doon lu rafet maanaam dañuy bañ jaam bi yor lu mu soxlawul ñuy laaj ca jàkka ja walla ci jumaa ja walla ci hôpital ba mu ni lii kat xaaral ma joxe ko ngir yàlla fekk la muy joxe ak ñàkkam faane dara waaw Cheikh Abdoul Ahad daf daan wax ne ab ab joxe day bu gaañul fa mu jógee du jariñ fa mu jëm waaw maanaam kiy joxe faw li muy joxe dafa war a rëy ba mu xam ni lu rëyee fii jóge ngir mu man a jariñ ca ka mu jëm war a wax ne ku may lebal nag ma lebal bor bu bor bu rafet bor bu rafet bi nag mooy day day da dangay fexe nag ba la ngay joxe nga tollook moom ki tolloog junni buy joxe ci yàlla na joxe lu tolloog junni ki tolloog fukki junni buy joxe ci yàlla na joxe lu tolloog fukki junni ab jaam wërta yéesaleel boppam fa ko suñ boroom nat joxe boobu suñ boroom wane na ci ni julliti de ñoom dañ daan joxe seen alal doonte sax joxe ba mën naa dem ba bari ba mel ni ngaañ ci ñoom waaye nag e, bësanteeg sa sa xol daal e, góor góorlu daal ba bu joxe ci yoon yàlla jotee nga joxe nga joxe ca ca joxe ca anam nga gën a màgg anam nga gën a rafet loolu moom ak texe rek lay jur moom suñ borom wax naan ويوسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق صح نفسه فأولئك هم المفلحون شحابي دان دان جوخه بابو يونتي صلى الله عليه وسلم ني ديو لو دسي مونيكو من دال لا امان جوخيناكو با يالا كو يونتام لا دسي صحابه يامن نانكو جامبار joxe seen alal joxe seen bakkan seen deret génn seeni njaboot ñu ànd ak ñoom waaye moo tax alxuraan wax ne nag képp ku xeex ak bakkanam ba koy teree nay maanaam bakkan ba nga xam ni mooy xëcc ci moom ak nay mu xeexale ko bakkan bi nga xam ni moo ko yedd ci mu bañ a nay kooko day ku texele doon kooka ku texe lay doon bokk yi joxe lu baax mooy taxa am lu baax lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuxibbuun ñun ñëpp liñ bëgg mooy mbaax ñun ñëpp liñ bëgg mooy baaxle suñ borom nee na du ngeen mën a amul mbaax wala du ngeen mën a baaxle lu dul ne da ngeen a xool la ngeen gën a baaxale ngeen jox ko seen boroom waaw ngeen jox ko seen boroom mooy kon jaam warut yor alalam la ca gën a suufe moom lay yóbbu ci bisi diine yi wala barabi diine yi bu ñu wootee ci lislaam nga nay bu ñu wootee ci poomu àddina nga tabe ca loolu mi ngi am ngi am de ngi am ko xam ne guddi gàmm guddi laylatul qadr yowmul aid aidayni aidul fitre ak aidul eh, adha du ci nangoo ñàkk lu mat téeméeri junni te bu ñu xëyoon eh, jiital ko ci am po mu mën caa dépassé loo xam ni dana weccit téeméeri ayit loolu bokk yi ab jullit bu mat du ko def bokk yi suñ boroom tabaraka wa taala misaal na joxe sa alal ci yoon yàlla dépassé sa alal ci yoon yàlla suñ boroom misaale na ko ki nga xam ni dafa ji peppam dafa ji peppam pepp ma nag sax na am na juróom ñaari gub gub bu nekk am na téeméeri pepp loola lu muy tekk mooy kiy joxe ci yoonu yàlla bu joxe benn am fukk bu joxe fukk am téeméer bu joxe téeméer am junni bu joxe junni am ñaari junni ba keroog muy joxe ba keroog suñ borom di ko jóor di ko jóor innama yuwaffa saabiruna ajruhum bi xeyri xisaabin ñi nga xam ne bu ñuy joxe ci yoon yàlla dañuy muñ dañuy muñ di muñ baleen suñu day mujji joxe bu të dakk boobee def ga ñuy def ci yoonu yàlla dana leen jural ba leen suñu borom di fay du ko wàññi du ko régler du ko natt da koy jur مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل شنبلة مئة حبة والله يداعف لمن يشاء والله واسع عليم كي جوختي يون يالا دال نا خامني جيف جي لومو كو خيب خيب ملني نكو جي بيب بيب با ام جوروم نياري غوب غوب نيك ام téeméeri pepp nga ji benn pepp am ca juróom-ñaar téeméeri pepp mooy nga jëf jënn jëf am ca juróom-ñaar téeméeri jëf joojee waaw moo tax ñi joxe seen alal ci yoonu yàlla ca ngistal lalu ko rëy lalu ko yàqe wunu ko ñaxaate wala Euh, ak yëkkatiku xanaa dañ koo def ngir jëmmi yàlla ji rek ñooy suñ borom dana ful seen mbir dana yokk seen alal ci dana ko barkeelal mbokk yi dépassé sa alal ci yoonu yàlla joxe sa alal ci yoonu yàlla la ca gën a tuuti ba tol ni fepp suuf suñ boroom nee na jaam bi dana ko teg bët فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كومو دون تي يين موي داف لو باخ لو باخم لي كات بن فيب سوف فني سوخلا نيغا فاي تابخ جاكا ولا جمعة ني ني سوف لا ني سوخلا مو ديم جيل بن فيب سوف نيو تك كو تيا بو ليغي سوني بروم دا نكو داف يو باري نيكو سا جاغي ني waaye nag wa man yaamal misqaala sarratin charran yara waaye itam képp koo xam ne fekk nga ñuy tabax ab safaan nga jël lu tol ni fépp suuf participer ko bokke ko dugge ko ca safaan boobee ba léegi dana doon aw ay ñel la dana doon aw ay ñel la kon mbokk yi جفي موم دون جاولا وأن ليس للإنسان إلى ما شاء وأن شعيه سوف يرى جام بي أم لدل لم جف تجفم جوجة كت لمي جسلا كون بوكي جت نسك لو واي أم nga joxe ko ci yoonu yàlla te yàlla rek tax juma yi ñu tàmbali ci réew maa ngi fi te àggagut jàkk yi ñu tàmbali ci réew maa ngi fi te àggagut kër docteur yi ñu tàmbali ci réew maa ngi fi te àggagut way wéréd yi way ñakk yi ñi ngi fi way wéréd yi jógagun ci seen lalu wéréd yi way ñàkk yi itam tàggoo gunoo ko ñàkk waaye ñi ñëpp nag kenn ku ne man ngaa lebal yàlla ci moom bokk yi daare alxuraan yi ñu fi tàmbali ci àggagul ñu ngi fi moo xam daara ju ñuy jàngale alxuraan rekk la wala joo xam ni dañoo boole jàngale alxuraan ak lakk arab yi nga xam ne ci la alxuraan wàcce te mooy quraanan arabiyan bokk yi daara yaa ngi fi soxlawoo ay ndimbal sëñ daara yaa ngi fi soxlawoo ay ndimbal waaye itam mat na mat na wala jot na sëkk jullit yi génne seen alal taxawalaat ci lislaam yëkkatiwaat ci darapom ba